barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. lu yàlla bëgg ak lu yonent bi bëgg ak lu Cheikh Tidiane bëgg ak lu Baye bëgg incha allah danañ ci góorgóorlu bu baax a baax te kenn ku nekk bul fàtte sa waxtu julli ndax loolu lañ lay laaj yow ma xiyaama li des yëpp duñu ko laaj buñ ko laajee julli mu rafetal ko jeex na ñu bu duggee ci bàmmeelam ba yëkkati ko na ko laaj ko kan mooy yàlla nga wax kan mooy yonent bi nga wax ana daa nga julli ñu xam ne gis nañ gis nañ ne julli yi dul jeex dañ dañ koy wax ne tëddal yow xaar aljanna waaye sa sa sa sa sax na ba pare loolu nag li koy maye mooy julli mooy def lu baax mooy bàyyi safaan benn waay dafa nekk benn jenn jigéen mu di ko waxtu ne mu ngi koy sàkku ndaw si ne ko ragalal yàlla mu ne ko daa ba bala maa ragal yàlla jotee yow ba pare ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba benn bés ndaw si am soxla ñëw na ko maa ngi nii am soxla kon nag ma doon wax bu fekkee ne am nga loo ma jox su ma ko joxee bu faj sama soxla bi fajal yooyu dem sa soxla ah mu daal koy jox alal yu bari bi mu demee ba nga xam ne fii ne mu bu koy dem ci ndaw si ndaw si ne ne ko maa ngi lay fàttali ne yaa ngi laal loo xam ne moo ko loolu laa lay fàttali jëlal bu la neexee defal de waaye lay fàttali ne yow li ngay def moomuloo ko te yàlla am la tiim di la gis bàyyi na ni yàlla di tiimee doomu aadama ji bu ko doon seetlu du ñemee mooy yàlla benn yoon ndax looy def tam ci kanam koy def booy naan sàngara ci kanam koy def booy njaaloo ci kanam koy def lépp lu bon loo xam ne koy def yàllaa ngi di te du dara ci àddina daf la bërgël bàyyi ويوم القيامة جنك ومتاج نلا وقت شيء لو ما دفع لو تي وخ بفكر أن الدق يلا دق الكل بفكر أن الدق أن الدق يلا دي كاستنج منجي وقت شر بنك نوخ لو موسى دفع شر يوخ بن بن بن جيخ يلا سوغل أتي جامبو كنا كنا نون nañ teel a seetlu yàlla mooy suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu yonent alquran mooy suñu téere buñ defee noonu rek yàlla dana ñu jàppale ci àddina daañu jàppale ci àllaaxira ni ngeen mel nii fekk ngeen koy mel seen dëkk kanam rek lay jëm waaye dellu gannaaw te yàlla mën naa yokk itam bunti wërsëg ma nga xam ne Niye plan ciğeriyim? Bağ yürürüm vardı kumsadan ciğer. Elemanla koyalı yukarıda. Millen dikarım, millen lisat, millen inyanı verdi. Yalla maylen zep çakkutu. Zahir akti bakın. Kariyeri sallahu arda. Aman aleyha. Millen dil dokel bağ bak. Diden inyanı yalla. Ngeen yokku, wéeku. Kenn ku nekk ci yéen. na yokk ba yëg na yokk nga ci barke Baye yal yàlla ubbi bunti wërsëg yi yal yàlla ubbi bunti xam-xam yi ba xam ne ni eh, eh, xamee yàlla noonu la ñuy xamee lim lim digle ak lim tere parce que xam yàlla doy na baax na waaye nag il faut nga teg ci xam li yàlla digle nga di ko def ak li yàlla tere nga di ko bàyyi kon yal nañu nañu góorgóorlu bu baax a baax yal na leen yàlla jàppale ci zaahir ak ci baatin bi isnillahi taala bu yà bu ko bu wér mayee incha allah daañu doxal bu benn bés ba àgg si àgg si foofu incha allah bismillahi taala jërëjëf incha allah taala incha allah alhamdulillah